One summer name more the eight more. One summer two the more the eight more. What's my name? Eh, what's my name? Eh, eh. One summer name more the eight more. Eh, le do a eight more le do at more. Summer two the boy to do nanga am flow. The for this nigga at no go. kaay ma jox la benn nickname nga moom ko dégg naa yaa ngi sàcc sama sound di ko play ci concert yi ne around comme jege sil ma may la tuuti buzz nigga sama tur boo koy mbubboo di nga sulu nigga salaamaaleykum everybody salaamaaleykum moo Flow mu ngi nuyu ñëpp di bëggee bépp fans bi nga xamante ne si mu ngi ci diaspora bi di seetaan li muy def di la wax nga koy seetaan ci télé musique ndax télé bi mooy sunu TV da ngeen di ñëw ñu seetaan fii vidéo everything you need am na interview I clip everything te ñoom sax dañuy réaliser ay clip donc Inch'Allah, on aura beaucoup de projets yoo xamante ne si dinañ ko liggéey ensemble Edmo Flow mu ngi leen di invité ngeen ñëw ci Télé Musique Télé Musique bii ñoo